sol man ruube fajar. géejewaay Pikine lu ñëw ñu jël ko. nangul sa yëf nii fa lañ dëkk. nangul sa yëf mais soxna nag loolu la yàlla def de. <laughs> nangul sa yëf. Ah, banlieue banlieue daal moo ko yor. <laughs> est-ce que est-ce que neexul rek. ñëw bokk fa la Balla dëkk. fa la Ama Baldé dëkk fa la euh, Balla Gaye dëkk. Hmm. fa la ñëpp dëkk. fa la Modou Lo dëkk am nañ fi ñu cosaanu doog a ñëw comme ñun dañoo ay dolli Dakar. dañoo gàddaay rek ñëw dolli Dakar waaw kay mi ngoog Aïcha merci beaucoup en tout cas fii la ñu koy far ndar keppe suñu ab éphémérite hmm. waaye nag euh, <laughs> Gbagbo ñibbi na de. waaw. alors un retour triomphal que <laughs> j'étais là waaw. ndekete nit ñi nalaw ñu gëmuñu pattuñu dara dottu leen te nag gis nga lu jugee ci xool ci xool lay bi li mag yi di wax boobu ba liggéey wolof njaay di ñu ko wax teetee ñu ko ba ñu màgg ndeke dëgg la mm-hmm. injustice baaxul waaw noo gisee ñibbisee bi <coughs> te boo gisee euh, euh, tey loolu noonu mu am ko c'est parce que gis nga gis nga njiit dafa war a am lu bëri loo xam ne da nga koy jàng ci passé. Mhm. parce que Alassane Dramane Ouattara quand même troisième mandat bi troisième mandat forcé la boo xoolee parce que dañ ko contesté nit ñi reyanteeg moom. gars yi opposition bi ñu ci bëri ne dañuy buddee dañuy bàyyi. parce que mhm. mënuñu woon concevoir quand euh, wala ñu jàpp ne troisième mandat war na fa am. loolu moo indi tey jii nii bu ñu euh, moom buñ ko disculpé au niveau de la cour pénale internationale ñit ñi ne bag boo kat. buy ñibbisi fii dinañ wan Alassane Dramane Ouattara que li nga xam ne Côte d'Ivoire dundoon na ko Gbagbo lii tey fàtte nañ ko ndax moom tey la lam ñuy dundaloo donc c'est des choses yoo xam ne dafa am solo suñu njiit yi di ko bàyyi parce que ku la wax ne ne Laurent Gbagbo mën na ñëw Côte d'Ivoire mu am fa accueil bu toll nii da nga naan déedéet warul mun a nekk ak ce qui s'est passé récemment mm-hmm. avant muy muy muy perdre le pouvoir donc il a fallu ñu user la force pour mën ko fa jëlee donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ne euh, suñu waay politique yi dañ ko war di bàyyi xel justement c'est très important xam nga ñoom dañuy am exemple bu ne ci seen kanam te duñu ko bàyyi xel mm. te naka la souveraineté appartient au peuple tey la gën a leer li tax nag ñuy waxtaanee euh, actualité internationale boobule moo di que dafa xaw méngoog jamono fii ci suñu suñu réew dafa jotoon a xew ñoo ngi fàttaliku ci 2019 euh, maam Abdoulaye Wade bi mu ñibbisee itam euh, gis ngeen ni ni ko askan bi dare ak dalale les gens peuvent regretter ak coup chaud ils peuvent refuser mais derrière bu ñu xamee ni ki ñu fal matul njiit dañu koy folli ci ba muy gën a rafetee te lu mu ci bañul ñu ko ci askan bee ko wax. <laughs> waaw mais parfois tam la faute à parce que euh, li ñuy faral di def diw yàgg na fi rek na fi jugee duñu parfois xool ci li nga xam ne mooy bilan wala njariñ bi mu amal askan wi wala yëg-yëg bi nga xam ne dëkkam mi ngi koy yëg ci à travers ni mu téewee réew mi waaye diw yàgg na fi wala benn rumeur di dem diw doomam lu fi bëgg teg wala rakam lu bëgg soit ñu jëlee ko fi dañ ci am part de responsabilité ñun askan wi ndaxte parfois du ñu xool au fond des choses naka la mën a demee ngir mën a taxaw taxaw boo xam ne dinañ faire le bon choix parce que yaakaar tamit mooy mooy mooy dugal nit aljana waaye yàlla teg na ay charte yoo xam ne diine la ak jàngale ak digle ngir nga jaar ci ngir mën a àgg xëy na ci yoonu siraatal mustaxim ba jafe-jafe lay am ci Afrique Côte d'Ivoire nag j'ai eu la chance dem ci dëkk bu boobu dafa nuroog Sénégal ci lu bari parce mhm. que suñu infrastructure mhm. suñu ay quartier suñu dëkkin suñuy marché. suñu mais mais la preuve sax ñun. Côte d'Ivoire nañuy gën di joxe en exemple. Mhm. bon maintenant le l'histoire de de kii na la Rwanda doog ñëw. Mhm. mais ñun Côte d'Ivoire rek nañ doon. Euh, joxe exemple c'est dañu nuroo ay mbir yu bari yoo xam ne force gi jaay doole ji dafa bari ci suñu ay dirigeants africains yu koy def et sa passe. Mm. dañ naan ça passe ou ça casse. Mm. jaay doole jàpp tëj wala jàpp euh, bundu xataal wala quoi que soi ñu bàyyi mu jàll kon keneen day am fitu ëllëg mën koo def. Mm. te def lu ko raw merci askanu ñoo war a jël seen ay matukaay. ci jamono ji fii ci Sénégal déjà Gbagbo bon retour parmi euh, <laughs> justement sa famille ndaxte nag gàddaay mm. te ñu forcé la ko dafa métti métti si njaboot euh, surtout nga bàyyi njaboot sa ginnaaw dafa métti lool kon nag jabaram euh, te teeru woon na ko ci aéroport ba Simone Gbagbo moom tamit mu nekk une dame de fer bu ñuy wax première dame lii la ndaxte nag jigéen da ngay war a nekk la grande dame qui puisse bu boom rëy ba mu mun a boot jëkkëram en cas de problème c'est important. Mhm. on a des références des exemples au-delà de la première. dame oui absolument absolument et puis sax bu natt ñëwee fa lañ fa ngay xamee gor. <laughs> Ah, ah. Euh, kan mooy gor ak euh, li nga xamante ne yéen a àndandoo mais pour revenir juste ci li nga wax euh, ci li ngeen wax léegi. tey ji boo bu coow amee ba tey ñu beddi président teg fa keneen mu de war a def retour am nit ñi tax taxaw ak yéeg ko loolu mooy wan ne peut-être situation actuelle réew ma metti na et que désespoir am na léegi li ba boo li bag boo ñëwaat peut-être signe d'espoir lay doon ci ñi nga xamante ne euh, ñu mooy ivoirien yi